asakay muurum koor danañu ko génne ci ceeb tàndarma mbaa dugub comme ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ay atteem dana war ci bépp jullit boo xam ni am na loo xam ni yokk na ci dundam ci bëccëgu korite ba guddi ga yépp ki koy joxe nag mooy kilifa kër gi joxeel ko saxnaam joxeel ko ay doomam ki yàlla dogal muy boroom kër gi dana génne asakay boppam ak képp ku nekk ci kër gi donte sax xale bu ndaw a ndaw la ba ci xale biy nàmp sax dañ ko war a génneel azakay moorum koor ba ci surga yeeg mbindaan yeeg ñépp borom kër gee koy génneel waxtu wiñ koy génnee nag mooy bu jant bi soowee ci bés bi mujj ci weeru koor ba ci bésub korite gi ci fajar gi noonu rekk waaye nag mbokk li gën mooy nu génnee ko ci bésub korite bi lu jiitu nit ñi di dem di julli ca ca jàkka ja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko génnee azakay muurum kooram joxe ko lu jiitu ñuy julli ji am nga azaka bu nu nangu waaye nag ku bàyyi ba nu julli ji ba noppi nga joxe ko dey la nga joxe noonu ab sarax la rekk ci biir sarax yi kon lay farata te di jaadu nu joxe azaka balaa ñoo julli ji moom azakay muurum koor kan lañ ko war a jox ki ñàkk ak miskiin ki ñàkk ba amul dara lu mu dundee wala sax ki nga xam lu mu añee rek ak lu mu reere la am waaye amut lenen. moom azaka nag danañu ko joxe lu sa saa saa ci dugub mbaa ci ceeb mbaa sax ci tàndarama mbaa li ñuy dundee moom saa moom yi benn ndab la woon bu yonent ba daan nattee ay azakay muurum kooram sallallahu alayhi wa sallam tey jii nag bu doon natt saa ak sunu jamono jii naka la war a dana toll ci ñaari kilo ak ñeenti téeméeri garaam maanaam deux kilo quatre cent ci ceeb mbaa ci dugub mbaa ci la waa dëkk ba di dundee moom la lay joxe kenn ku ci nekk ibnu omar yal na ko yàlla gërëm nee na yonente ba farataal na azakay muurum koor ci nit ñi ci saa boo xam ne tàndarma mbaa dugub mbaa pepp gor mbaa jaam góor mbaa jigéen képp koy ab jullit rekk war na la mënees la ko génnee sax ci xaalis tey ngir maslaxa su fekkee xayma naa li ma war a joxe lépp ci ay kilo ma xool ñaata la toll ci xaalis mën naa ko génnee daal di koy jox ki nga xam ni mooy néew ji doole bi ngir ni su ko ñëpp joxee ceeb ak dugub ak tàndarma mën naa xaw a sonn moo tax ñu ne mënees na ko jox xaalis ngir mu mën a jënd ndawal mbaa mu bégal njabootam comme ñëpp moom azaka nag ki nga xam ni dund na ci weeru koor ba ca fan bu mujj ba mu génn àdduna kookee day azaka yi murum koor waratu ko wàcc na ko ndax fekkewul bés bañ ko war a joxe ki nga xam ne nag dañ koo ëmb du jaadu ñu koy joxeel azakay murum koor doon te boroom xam-xam yi nag sopp nañ ko lool mbokkum jullit azakay mburum koor farata ci képp koo xam ni war na koo mën a joxe yonentab yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam nee na koorub jaam bi yàlla da koy def diggante asamaan ak suuf yàlla du ko yëkkati mukk lu dul ni kat joxe nañu azakay muurum koor kon mbokkum jullit nañ leen génne asakay muurum koor ngir yàlla yëkkati sunuy koor nangu sunuy koor maa ngi ñaan yàlla mu defal ñu xéewalug àdduna ak xéewalug yowmal qiyaam nangul ñu sunuy jaamu yàlla ci biir koor gi jéggal ñu sunu bépp njuumte te yàlla na ko yàlla defal mboolem jullit assalaamu aleykum wa rahmatullah